Thank you. ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com euh, fasiyene yéene ñëw nuñ koy defee di leen dégtal seen chronique lu ay di jàmbat lu defu waxu loolu la ñuy wax waaye laata loolu dañuy baalu àq ñépp di sàkku timit ngeen baal ñu àq ndaxte ni ngi génn ci weeru sell du weeru charu ramadan lépp lu ci nit jaamu yàlla yàlla na ko yàlla ful bu baax a baax yàlla na yàlla indi jàmm ci réew mi Dakar Matin kilifa diine yi yàlla na leen yàlla may kàttan nekk suñu kanam duñu gunge bu baax a baax a baax kilifa aada yi naka noonu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu dénk lenge yi tamit ñu jiite réew mi yàlla na yàlla sellal seen xel ba ñuy mën a def luy jariñ askan wi ndax loolu rek moo tax ñu teg leen fi may tàmbali ne am na ñoo xam ne nag pétrole la ñu korité ma ne am na ñoo xam ne pétrole la ñu korité loolu lu muy wundu moo li wolof di faral di wax rek fen du bejaaw fen modul be ben ben yoon fen du bejaaw ndaxte am reportage bu yëkkatiwaat coow li yëkkatiwaat coow li laay wax ndax du na guléet coowul pétrole ak gaz xew ci réew mi ci anam boo teerek, mën a téye rek am na ñoo xam ne yàlla sell nañ seen xel ba yëkkati nañ ci ay wax ci nekk yépp njuuj njaaj yu nekk ci contrat pétrolier yépp wax nañ ko ba ñu dem ci premier ministre defoon conférence di tëkku nit ñi ne ku fi waxati pétrole nu tëj li ci biir kaso bi dem ci sax ba yebel am ci ñuy wax ne contrat yi waru na ci wax parce que contrat yi dañ ko bind en anglais mel ni nit ñi jàng nañu anglais wala mënuñoo lire anglais wala mënuñu ko sax traduire en français xam nga dama yàgg di wax ci chronique ne koo jàppee dof mi ngi wut garab yum leen fajee te nag li ci gën a garaaw mooy seen garab jafe lool coow lii xamoon naa ne guddu gàtt dina a jib jibaat sax la wax bbc jibal na ko daanaka boo xoolee dafa résumer lu bare bare bare bari lo xam ñu baree bare wax nañ ko fi ci réew mi ma leen wax fi japp leen ko tak leen ko téré BBC ay këyit ci wóor la yor. Dakar Matin. ndaxte dégg naa ay nit di wax ne yëgoon nañ reportage bi ñëpp ñoo yëgoon reportage bi ndax dama leen wax ne gis nga ñoom bu ñuy ñëw di def reportage du ñoom rek de ñeneen ñi dañuy contacter ay nit ñu nekk fii ci Sénégal. waxtaan ak ñoom jël seen xalaat doga nak ñom tambali li nga xamne modi seen reportage kon kenn du fi bakko yegon nañ reportage bi ñu bari yegon nañ ko te du ci ñom rek ci élection présidentielle yi ñaata média occidentaux lañu wax ak ci teju khalifa sall bi ñaata média occidentaux ñuy wo laaj ñu ñew ba suñu bureau nañu dégg nañ ngeen wax ci dossier bi lan mo ci xaw lo len ci xalat agent de renseignement yaa lu nek bitim rew dañuy sakku des fois suñu gis-gis ci mbir mi kon kenn du fi bàkkoo yegon nañ ne BBC mi ngi def enquête BBC ñu beur yegon nañ mi ngi def enquête amna sax ci kilifa yo BBC dem nañ fa ñoñu xawle na gantal na buñuy am dara lu ñuy wax dañuy préférer wax ko ño ñoo yàgg a xeex ci mbir mi mention spéciale à baba aydara mi ci wax ba tàyyi mention spéciale à ousmane sonko mi ci bind téere ta ma leen wax nag de téere ba mu bind dankaafu na leen ñoom ñëpp ne ku ci ñeme débat contradictoire na nga ñëw toog ma toog waxuma nag ñàpp yi ngeen indi de déedéet indi leen seen ministre yi ñu toog ma toog ñu teg téere bi ci kaw Jurnalis yi arbitrer ñu def ko retransmission en direct ñëpp sétane bo ba légui amul kenn koy wax ci pétrole bi ku ñëmé def débat contradictoire ak Ousmane Sonko kon mention spéciale la man mi dama done jël Ousmane Sonko bu génné ñom ci woo ma na ma waaw ñun dañoo bëgg nga jël ñu mané len pour wax ji fay ka len ñu def débat contradictoire ngeen tok Sonko tok ñu téni journaliste ñu def débat contradictoire ci mbiru pétrole bi lu jaadu la ci réew mu nekk ci démocratie droit à l'information am birahim sek forum civil gàcce ngaalama wax na ci bay bëgg a dee mamadou lamine diallo tekki wax na ci bay bëgg a dee waaye comme bitim réew seen yooyu am doole lool wax nañ ci nga gis état bi tiit Dakar Matin. korité pétrole korité pétrole korité pétrole sa jumaa ja korité pétrole ci ministère des affaires étrangères mën na leen di ngeen tontu de di ngeen tontu par la force may wax fii ne li BBC génne tuuti la njombaxtaan la tuuti dong la am na leneen lu war a ñëw mbir mi yoote la yoote la parce que xam nga ñoom benn stratégie lañ jël mbamb du fi wessu wer def conférence de presse menacer plainte du fi wessu wer ciow lañuy créer ça veut dire contre bu information bu graw amé jëm ci ko dañuy créer contre feu pour lan pour mbir bu naxas du mujjé fenn dedet stratégie bobu comprendre nañ ko légui yoté lañuy def ak ñom ci mbiru bi tay dina len ci wax lu bare bari dégg nañ Aliou Sall wax joju sàppi na version ba muy joxe sàppi na nee na day porter plainte mais may laaj sénégalais yi ne ñaata yoon la fi dig porter plainte ana plainte bi nga xam ne moom ak Frank Timis nga xam ne dafa jël jet privé wàcc ci aéroport Léopold Sédar Senghor Dakar matin ñëw pour def interview def interview mu génn ci benn journal mu tekk sénégalais yépp xas opposition bi yépp xas sax daanaka autorité yi fa la mujjé damay porter plainte ñu def conférence ratatatatatat wax mel ni robinet bu ñubbi ana plainte ya ana plainte ya ba tey ji kenn dégg ko plainte contre sonko contre ibrahim sek dara nada tous ku yor deug téye ko dang koy waaye ñoom xam nañ ne njuuj njaaj lañ def ci mbir ba mu leer nañ te seen stratégie daanaka boo ko xoolee da ngay wax ne ñi dañoo yeb dañoo yebaate dañoo yeb askanu Sénégal balaa maa dee ñuy génn mémorandum boo xam ne tissu de mensonge la la ci nekk yëpp dara du ci dëgg mémorandum bi gouvernement bi dara du ci dëgg chronologie bu ñu teg dara du ci dëgg légui nak ne président de la république mo signé décret yu saint offshore profond à Kayar offshore profond jëmele ko pour tim ko Dakar Matin. lo wax rek ñu la wad d'accord mo signé contrat mais contrat a amul ben validité bu que décret d'approbation andu ci kon ku signé décret d'approbation yi mom lañu wara war baram lutax ñu war ko Macky Sall signé décret d'approbation pour Petrotim waruko won signé ndax koy signé mois d'avril Tok ci dafa fekk dossier bi ci am mu wo inspection générale d'état ca booba nafi ngom kayta moo ko doon jiite nafi ngom kayta moo doon jité ca booba inspection générale d'état moo nekkoon vérificatrice générale mu ne ko nafi dama bëgg nga enquêtel ma ci dossier bii ba mo xam lan moo ci biir waaye booba moom xam na la mu nar président Macky Sall Nassi Kaito Yoni yoni ay inspecteur généraux ca Petrosen nous auditionné ay nit ñi nga xamné ñoo ci commission d'évaluation ci demande bu mësa a ñëw jëm ci walu exploitation pétrole fi ci Sénégal motax tay suma tu ma Mamadou fay directeur Petrosen tu ci tout porte-parole du gouvernement mais damay jaxlé damay tiit génneel naa leen Dakar matin audition inspection générale d'État bu Mamadou fay Mamadou fay boobu mi ngi nekk conseiller technique foofu ñu woo ko di ko auditionné laaj ko mu de dafa parce que musta dégg Petrotim te oil la négocier mamadou fay mo xamal lolu inspecteur généraux d'état na nalen dal saint offshore profond ak kayar offshore profond a ñun de petrosen musuñu ci digg petrotim tulay oil lañ dem négocier mu leer nañ sen bop xawma petrotim demb xawma ko barki demb petrotim bi dal ni mako xamé moy directeur général dal wonama dakar matin ne ma gaay dañuy signer ak petrotim te bobu maa ngi membre commission d'évaluation te demande bu mës ñew jaar ci commission d'évaluation manam kon ñu japp ne demande Petrotim jaarul ci commission d'évaluation mom ci mbettaange lool ne sax ba négocier ak Tullow Oil jëm ci élection yi janvier 2012 dañ nañ tegandi lépp ci suuf ba élection yi romb ba paré ñu ne ko mamadou mu ne naam ñu ne ko est ce que xam nga dara ci petrotim mu ne centaine de compagnie pétrolière yi fi nekk ci àddina yépp yomb na bu nekkee ne bëgg nga leen xam da ngay def enquête enquête bu leer nañ boo enquêté rek gis leen petrotim nag seet naa seeta seeta seet ba sonn gisuma ko fenn balaa rapportu inspection générale d'état bi ñuy nëbb ne duñ ko génne am nañ ko ñu dinañ leen génnal audition yi jox nañ leen bu mamadou fay dinaa leen joxaat beneen audition yi ngeen lire bu baax a baax ñooñu lu ñu wax ci audition yi loolu yépp nag mooy rapport bi naa ñëw bu ci recommandation yu ñu jox président Macky Sall la ca xew lan la avant muy signé décret bi jot na rapportu inspection générale d'état waaye laata loolu ci njëkk ak teranga na fi ngom kayta dem na ko seeti président lii nga ñuy lijjantiloo du mbiru Petro-Tim xajam na torop torop torop ndax Petro-Tim bi kenn xamu ko fenn amul capacité financière amul capacité technique ngir ñu mën ko signeel décret yu ñu mel rax ci dolli président suñuy investigation dafa am lu mu ñu wan de ñu ne ko lan la leen investigation bi wan mu ne xanaa ne sa rakk Aliou Sall mi ci digg mbir mi sarak rak aliou sall président mi ci digg mbir mi président nako wa continuer leen seen liggéey ca booba nafi ngom kayta dafa xamutoon ne Macky Sall moo ko Frank xam fànk timis mi nga xam ne lu njiig njaag mooy njaag moo ko gën a miin fop Macky Sall moo gën xam timis ña nga xamante ca Burkina Faso temps Macky Sall ci opposition bi nek xaritu blaise campaoré di jaabante fi nga xam ne burkina faso euh, bobu la ak frank timis ndax frank timis mi ngi dil ak frère blaise Campaure, ba so xolé frank timis jamono yi dossier yam am ci burkina faso yépp dañ ko arrêté Macky Sall na frank timis bu bah, a baax frank timis jet privé lay ñëwee fii ci sénégal li ñu xam ci dossier bobu bari na lool waye nañu dal rek Dakar Matin. Gazprom bu Russie ñëw na fii Sénégal ci diggante Cosmos ak Petrotim lu mu fi dem wut si surenchère dañ ñëw ci loolu aussi surenchère bu garaaw sax moo tax may wax ne liñ ci jublu mooy dividende yi ak royaltine si yokk ko bu baax a baax bu jotee dinañ wax ci dëgg-dëgg kan mooy encaissé dossier bi kan mooy encaissé pour nag ñu justifier décret yi nga xam mom la Macky Sall signé te teguñu ko fenn njut njaaj bu réeréy lañ ci def comme mo xew njut njaaj njut njaaj bu réeréy mo ci xew dañu ñew xam pétrotim bi du dara dil la ñom bu ñu du dara ñu jël pétrotim ne filialu petro asia petro asia mi ngi nek benu groupe société bo xam ci asia la nek am experience lol am doole lol ci wadou exploitation pétrole te dara du ci deug ndax société bobu ñe petro asia ñi ko créer 6 mars 2012 te contrat yi dañ wax ne wad moko ko signé ak ki di petrotim ñu ne janvier la ko signé ñu ne petro asia mi nga xamne moy yaay ja ma nga judd 6 mars 2012 ñu ne 6 mars 2012 boobule le juddu Petro Asia boobule petro filiale filialam la 2016 sax lañ tas Petro euh, Asia boobu ben actionnaire ci nekkoon moy Wong Jong King xam nga ñu yeb li yebaate la mais lolu bañ koy def xam nga luñ ci naroon jublu Modi comme xam nañ ne Petrotim bii mun ñu ko signer décret yi ndax buñ ko décret dañuy violer article 8, bu loi 98 du 8 janvier 1998 buy nul ne peut être titulaire d'un titre minier d'hydrocarbures ou d'un contrat de service s'il ne justifie les capacités techniques financières nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières xam nañ ne pétrole te mënu ko ñu ne nañ ko wut bu gën a rëy nañ ko sóobal créel ko benn bu gën a rëy ne filialem rek la pour mën a signé décret yi te nag li ci garaaw loolu yëpp bañ koy def diggante frank timis la aliou sall ali nguy ndiaye président macky sall amul keneen ku ko yëg ñoom ñoo teg toggu dil boobu yëpp bam ñor ñu yàq ñu paré ci lolu Dakar Matin. ñu créé Petro-Tim Sénégal SAU Aliou Sall nek directeur général bi le 4 juillet donc kon Aliou Sall mom xam na ne ne magam dina signer décret yi dina ko signer <laughs> baña signer dina ko signer mom xam na lu mu war ko signer té xam na lu mu signer ko gis nga dil bi njuuj njaaj gi Aliou Sall xam nga lan la ci verrou de sécurité verrou de sécurité manam boko joxone kenen leug ak sibir man na tok di wax mais Aliou Sall verrou de sécurité la pour ñu bokku ci dil bi waye suñu république bi nak <laughs> mom la doon wax sama ben xat bele passé mané ko man dama jommi mu na ma loo jommal mané ko xolal xeyal suba tel rek nga xol république bi ni muy doxé mu ne nan la république doxee ma ko buñ tuddé Macky Sall ba nopi tudd frère am Aliou Sall Dakar matin buñ tuddé frère am ba nopi ci walu scandale pétrole tudd gorom bo frère am Mansour Faye ci scandale ndox buñ tuddé ñooñu ba nopi tudd nijaayam Timbo ci lan ci bokku na ci scandale agistran parce que mo enquête xaalis bi lolou la wax BBC ko génné mu lér nañ bu ñu paree ci loolu tudd boo peeram omar sek ak ñeneen ñu ma dul tudd dinaa dellu si ci benn scandale gis nga jip yii kaytaanoo génne ñu ne kaytaanoo moo génne leen wax kan indi sénégal ku ko jaay au conseil des collectivités territoriales ak dil ba na mu demee ala ci dugal kaytaanoo lépp naa leen ko leeral mais mbiru pétrole bi ci à suivre la leen parce que mbir yi léegi la buñu da ngay dindi buñu dindi vous êtes taxaw fi duñu wax ñu république la république bo xamné ne président petit frère beau frère beau père lool la république <laughs> na len vous dig chronique site dakar matin